gis leen ma gi nag dañ koy wàññi daawa gi du folklore ah. gaa yi dañuy wax xumbuta dagan l'islam amul lu xumbuta dagan lu dagan a fi am lu xumbu amu fi lu dagan moo fi am lu xumbu kuy wut lu xumbu da ngay dem nga xam ne dañuy def ay statut ah. ci whatsapp wallahi bokk na ci liñ bëggoon a wax te temps may wax bu doy waar léegi yow <laughs> jigéen yow dañ laa wax na nga nëbbatu nga ne maa ngi nii léegi lan lay nuru li ci gën a garaaw mooy bu dee da ngaa am jëkkër yow kar moo la soxlaa xool sa borom kër léegi nga def estati Facebook def estati Instagram def estati WhatsApp Telegram léegi mooy kaay xool ma léegi ñi lay xool ñëpp ñuy am baakaar ngay am baakaar parce que yaay sabab bi yow yaay sabab bi beneen bi bu dee amoo jëkkër ci la gën a garaaw mooy yow xamal ne internet bi lu ci xas ba dugg wallahi même boo ko effacé ah ñi xam internet même boo ko effacé mi ngi fa mën ngaa toog 10 ans benn waaye génne ko beneen bi am na koo xam ne yow bi nga génnee sa statut capture na ko toog di la xaar nga effacé ko moom capture na ko yor na ko def na ko capture d'écran ba yor ko buy génnaat doo xam ku ko génne doo xam kan moo ko génne leneen li mooy li ma waxoon ci bët ak ci làmmiñ muy wàllu cat fan nga ci toll fan nga ci toll moo tax boo gisee jigéen ñi ñoo ëpp lu ñuy am ay problème mu shayatin dañoo ñemee exposé seen bopp bët yi di leen xool làmmiñ yi moo tax daanaka li leen di dal ci ay feebaru soyaat yi nag feebar yeneen yu kenn xamut kenn xamul nu mu toll parce que dañoo bëgg gis leen gis leen magi nag dañ koy wàññi daawa gi du folklore ah gars yi dañuy wax xumbuta dagan lislaam amul lu xumbuta dagan lu dagan a fi am lu xumbu amu fi lu dagan moo fi am lu xumbu kuy wut lu xumbu da ngay dem feneen fii ku bëgg lu dagan nag mën ngaa ñëw kon folklore amul ci lislaam te dara boo ci nekkee yàlla dafa wax ne udxulu fi dugg leen ci l'islam gi ba jeex ci tàkk Ibnu Kasir mu ne bu fekkee l'islam cercle la cercle da ngay dugg ci cercle bi ñu xam ne yaa ngi ci biir wala nga génn ñu xam ne yaa ngi ci biir mais mënoo ngarale benn tànk ci biir cercle benn tànk ci biti da ngay dugg mbaa nga génn loolu mooy afa tu'minuuna bi ba'dil kitaab wa takfuruuna bi ba'd gëm li la arrangé weddi li la dérangé l'islam du noonu dangay jël lépp mbaa nga bàyyi damay dund sunna am na yoo xam ne yellatul ci yow sañatoo ko sunna gi moo la ko mayetul da ngay jël sunna gi mbaa nga bàyyi mais munoo jël sunna gi ni mu la arrangé nga koy dundee ni mu la dérangé nga tege ko ne <laughs> loolu doxul loolu doxul il faut ñu bàyyi ci xel jigéen buy dund sunna am na yoo xam ne yellul ci yow danga nga war a nekk exemple nekk royukaay mais nekk ci ay réseau di photo woo ko wàccee ka foo dem xew boo dem nangam booy dem marché maa ngi ñuy dem marché lii laay nduggi xool leen sama ndugg mi xool leen sama ceeb bi tey xool leen li ma li ma li ma li ma ma ceeb tey xool leen li ma mbaxal tey loolu pour lan la léegi lépp li ci biir kër yëpp nee nañ ko fàng ci internet bi waaw léegi nag nga bëgg cat du la jàpp làmmiñ du la jàpp ah kay ah te ñu ci ëpp dañuy sàggane seeni askar su ko defee ay jafe-jafe lay jur yooyu yu jaram moytu la nit ki da ngay garder sa image même sa doom da ngay soo xam ne day day am doom jour ngénte bi mu daal di yël xale bi photo ko esthétique ko sama bébé bu rafet baa ngi nii ñaata bët koy xool ñaata làmmiñ doo moytu loolu pour ñoom li ñuy def nii dara la alors lu garaaw lu garaaw garaaw wallahu taala alam